dem mënul mhm. fexe ba sëy ba sëy waaw moom daal dafa gis ni daal ku baax ku ñëw bu ko commencé teral rek mhm. quelques jours lay def ak moom mhm. pare bàyyi ko waaw léegi nag kaay ma wax la nag day am day da ci am léeg-léeg ñoo xamante ne nii tas yaakaar la ñuy def maanaam nekk góor di lekk alalam ba mu bëgg laa takk nga fexe ba indi benn prétexte doo ko takk maanaam doo nekk ci sëy bu ne waaye kii ni mu waxee nii góoma ni kuy tas yaakaar waaw maanaam bu fekkee mu ngi am ni koo xamante nii nag rab la moom waaw ñett yii rek kursi yu laxat jee akum ak sóoratu fatiha waaw bu ci ne juróom-ñaari yoon nga koy bind maanaam da ngay bind juróom-ñaari fatiha boo xam ni bu góor bu jigéen bu ngóonu ngaana ah. bind juróom-ñaari kursi yu bu góor bu jigéen bu ngóonu ngaana bind juróom-ñaari laxat ja akum bu góor bu jigéen bu ngóonu ngaana boole ko reenu daqaar mm-hmm. di ko sangoo boole ko ak reenu daqaar waaw boo ko defee juróom-ñaari fan insha allahu rabbi rab boobu moom di la topp di yàqal mm-hmm. day deñ mm-hmm. bu fekkee nag da ngaa bëgg am borom kër nga bind suratu xadri muy ina anzalnaahu nga bind ko juróom-ñaari këyit. këyit anzal naa fii laylatul xadr waaw moom saar bi yëpp ngay bind. këyit bu ne. waaw nga bind ko ci benn këyit. waaw saar ne nga bind ko ci benn këyit. waaw léegi nag yow boo demee ba nga xam ne sa heure boo xëyee nga jël saafara bi sa bopp rek nga ciy raxas. nga def ko ba mu mat juróom-ñaari fan ñaare benn nga def ko balay weer wi jot balay weer wee jeex di nga sëyi wala balaa at mee jeex di nga sëyi. Ah. mais alxuraan. Mhm. am na ñu ne kenn du ko sangoo ci duus. waaw maanaam xam nga xam nga waxu waxu kii waxu mag la. Hmm. waxu mag kenn du ko caaxaane. waaw maanaam alxuraan moom yow mi koy jëfandikoo nanga nga na nga sell yow mi ñu koy jox na nga sell bu ko defee nag lépp loo ci ñaan sunu boroom mu mën la koo may. parce que suñu kër yi eh, ak ni yu ci ëpp doo am doo ko mën a sangoo fenn fu dul ci toilette bi par exemple. parce que fi ne kër lu mu xat xat xat xat waaw yow ci sa bopp indi boo demee ba bëgg nelaw faaw di nga wut foo nelawee. dëgg la. maanaam noonu la mel maanaam ñaan fi nii boo yoree ay saafara yoo xam da ko war di sangoo fi mën ngaa fexe ba wut sa serviette bu baax bu fekkee ndakaaru nga ne foo xam daa xat nga lal ko taxaw diw sa yaram ba tooy xepp ba sentir ni tooy na boo paree nga jël ko nga weer ko maanaam nit ku ne pexe mën ta ñàkk daal maanaam pexe am na ci àddina lépp xam na am na am na ay pexe lépp a ami pexe ci àddina macha loolu mooy li nga xamante nit ki war na koy